mbokk yi dalee nag jàmm di ko génn nag jamono ji ci li nga xam ni mooy lëmbee réseaux sociaux yi euh, ci week-end wi mooy mariage Marie-Louise Diaw euh, di ki nga xam ni moom la Pape Abdou Cissé di international sénégalais boobu jël soxna rek loolee nag li yéem sénégalais mooy taar bi nga xam ni madame Cissé wane na ko ci xew mi ba ci ñu bari ci sénégalais yi foo dugg rek ci réseaux sociale yi moom ngay gis ñenn ñi sax dem ba di ko def li nga xam ni mooy photo profil ci loole rek nag ñi nga xam ni nag moo di Marie Louise Diaw ba muy célébrer mariage am fekk ko ñi nga xam ni nag ñooy ay ñii di ay star yu bari fekk ko waaye tamit ku ci mel ni ki doomu Cheikh Modou Kara ma nga woon ci xew ma ak yeneen i célébrité yoo xam ni fekkee nañu lu ñu mel di ko ñaanal rek sëy bu barkel